waaw bës bi dañ cee dañ cee profité pour def ñetti mbir benn bi mooy Cheikh Anta le 7 février 86 la génnoon àddina te ñëpp xam nañ Cheikh li mu li mu def ci Afrique noire li mu def ci pour rek pour noir ci ci àddina li mu def aussi ci Sénégal ak fu mu àggale turu Sénégal ñu jàpp ni bës bi war waruñ ko di fàtte parce que ñu mel nii dañu war a toujours nekk suñu ci yoon pour gën a leeral li ñuy def parce que nit ku nekk dafa war a am pour wéeru xale surtout nag ak xale jàpp nit ku amul wéeruwaay doom fu du xam fu mu jëm euh, Cheikh Anta jàpp nañ ni ci bokk na ci ñi nga xam ni yaakaar lañu même bu fekkee ni génn nañ àdduna yaakaar lañ ci si li ñu war def ci Afrique beneen occasion bi ñu ne ah ñu aussi génn suñu journal bu nga xam te ñu tuddee nag journal la bu dul waaw bu nga xam ni day ñëw di waxtu liñ jëf lu baax euh, ou bien euh, wax ci lu nga xam ni li rafet li ñuy def mais wane aussi li nga xam ni doxagul parce que amul àdduna li nga xam ni mën nga faj lépp ci ay diir bu gàtt li doxagul ñu woon ko ñu waxtaane ko mu am étudiants yi am seen espace ñoom itam ñu jàng di bindaale mais aussi ñu jàng naka la ñuy doxalee journal euh, ñu bañ ko def rek journalu directeur ak ak journalu direction COUD euh, ñu profité ji nag lancé ci tey jii nii lu ñuy wax cycle des grandes conférences du campus ñu bëgg ay weer wu nekk ou ñaari weer yu nekk ñu dajalee ñi nga am dañoo xam-xam ci benn pàcc ñu waxtaane ko tey waxtaane lañu mbirum Cheikh Anta ak li bàyyi xale yi xëy na ëllëg danañ waxtaane CFA beneen ëllëg ñu wax la liberté en Afrique et dans le monde euh, sujet bu nekk ñu mën cee waxtaan xam ni mbir mi du xeex ak doole ou ak xeer xeex ak xel la xel ak xam-xam euh, ñu yaakaar ne espace université nag loolu moo fa war a jëm. ñu bëri jàpp nañ jot na ñu jël njàngaleem Cheikh Anta ak œuvre am ci programme scolaire bi aussi bien préscolaire que lan ngeen ciy waaw xam nga ñoom ñu ngi doog a waxtaan xëy na bu ñu waxtaanee ba pare dana am ay proposition yu ñu def euh, jàpp nañu Cheikh Anta moom dafa war a nekk ci xolu sénégalais ci war a nekk ci jëfinu sénégalais yi loolu mën na jaar ci ci xale yi ci livre ñuy jàng ci école primaire ba ci lycée ba ci université ñu dugal ci livre yi nga xam ne moom moo ko bind xam-xam nga xam ne moo ko fi indi. benn mën nañ jàpp aussi di ko waxtaanee comme conférence yu ñuy def nii fàtte Cheikh Anta Diop moom ou kenn mënu ko. parce que Cheikh Anta Diop dafa mel ni naaj ci ci ci bëccëg ala kulli nga gis ko waaye ñu gën koo njëriñoo pour suñu politique de développement gën koo njëriñoo pour suñu doxalin gën koo njëriñoo pour suñu wéeruwaay parce que benn wax xam-xam dafa ne xale bu amul wéeruwaay day gaaw a daanu doo xam foo jëm. Euh, comme mën bëgg nañu xam fi ñu jëm war nañ wéeru ñu mel ni Cheikh Anta ak ñeneen itam. merci